السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما هي المباح لأمريته لأن أنسوني في الناس جامعة تيتك والبابا تقابلية يخمنا آه، فاس دل عن بكته ما رح بوغتاي ما ورندك في دو فانت السيام قد يخمنا دبي دي زورين دي صاحب موية كتير فان دوار دف في دو نبا خمنا الله يروح في أمو تنوى يعني نيو ني ديك خمنا لول دكرة نعم. آه، جمال ندخ في مدك نمو ولو نمو tuddee boppam dafa sëñ daam Diouf Lambaye kon kooku dama yaakaar ne saa bu njëkk a diwloo sama wax dama yàlla bu ca dugg ci wax ba nga ngi am mbégte lool di la fonk di la sago di la tiitaroo di la xam jaral nga ma ne ndax as gor su ne gor la la mën a doon te gis naa ni ma téye dem ba sa famille xam ko ñëpp muy sa waajur góor wu say rak fexe ba sa famille ñëpp tamit bëgg ma te lépp yow la kon maa ngi lay ñaanal seen li nga xam ne mooy boole suñu Saliou guddoo sa fan sa yaakaar may tas ci man li nga bëgg ci say waajur nga yàlla defal la nga am su nga defal leen ko xéwal ba nga ko defee rek bàkk seen xarit ah di ñaan fan yu gudd ak wér gam xéwal yu bëree bëri ba lépp loo yéene ci man tamit suñu borom may la ko nga xam ne yëmul naa kenn di loo xam ne yow Cheikhul Khadim xam ne nag am bakkan doom boo wootoon naan sàngal sax wun suñu tuwaas ma ñëwee naan naan sàngal su ma dee as gor kon maa ngi lay maa ngi sa wet nekk sa kanam nekk sa ginnaaw nekk sa kaw nekk ci suuf euh, di wax na saa boo geesu gis ma kon bu la am dara ragal ne ñaanal ci barke Sëñ Saaliw fan gudd ak xew yu bëree bëri yoo may dara te xam naa ne man boo amee xew sax mën na am xew naa dafa nga ci man maa ngi jégalu dañu euh, dóoru gudd boo wootee damaa xamul lan laay wax ante soxna ñu sant naa la gërëm naa la yëmam naa ko yàlla bind seexul xarit xam na wala sëñ Tuubaa bi ma yaakaar naa la yëmam naa ko yàlla bind loolu moom bàyyi ko xel bu baax a baax jërëjëf little bit loolu jërëjëf